laa yaroo sama loxo turandoo laa nekkoon sama turandoo moo ma yar def ma nekk xale ba tey moo toll nii gisuma sama yaay te gisuma sama papa te ñoom laa bëgg a gis xawuma leen tey ji su ma daje woon ak ñoom si mbedd sax duma leen xamee à chaque fois bu ma laajtee renseignement sama affaire yaay wala sama affaire papa duñ ma wax dara lu leer duñ ma bu ma waxee ñu ne ma sa yaay mosulaa bëgg moo taxee mu bay la fii mu dem yoonam su ma waxee sama affaire papa ñu naa ma sa sa yaay nangu jël responsable bi mu daw mu dem yoonam mu nekk fii man kese nag di jooy métit boobu noonu daf métti na lool ci xol na neexul nekk fii ak say morom ak ñëpp ku nekk mooy yaakaarul ak yaayam wala papam yow nga nekk fi yow kese bu may am 15 ans dama daan jàng mais bay naa jàng bu may am 15 ans lañ ma violé woon ba yàlla may ma ci benn doom bu góor sama doom nag mënu ma ko yor bu jël ko jox ko dama feebar nekk fii biir bu métti mooy sama feebar te daf maa sonal lool sax lu may daane dafa métti torop sama biir bi day métti à chaque fois fu nekk dem naa fa pour faj ko dem naa hôpital mais ay garab calmant lañ may bindal ñoo nekkal tey jii nag kooku daf ma jël adopté ma daf ma ni doomam bu mu jur téye ma lool bëgg ma nag lu ma bëgg suba fa ngoon ma dof si mais dund bi foofu moom it ndax maa ngi nii quarante sa aw ko estiré tamit sa aw ma ko mata tey ji dama bëgg dama ñëw tay bu ngeen jàppale ma te yàlla ya tax ma mën a xam sama yaay fa la nekk ndax soxla naa ko loor sax yaayam bu ko jur sax xamul sa fu mu nekk sama yaay mar Thérèse la tudd mala Thérèse jaata sama papa Salif cham lien so lañ dëkk ñoom ñëpp ñoom ñaari yëpp mais def ma nekk liir sama turandoor moo ma yar si moom laa nekkoon ba ma jógee foofu noonu ñëw Dakar fii nii benn mag bu jigéen laa am te sama mag bu noonu Guinée la muy Guinée kooku diggul dara su may wax ak moom sax duma xam ne may wax ak moom yaay lañ bokk man ak moom mais moom papa mooy fii des fois dama leen di namm ba duma am fenn fu muy sukk bu jooytu ko na sonn naa lool te jaaxle naa fu ñu nekk laa bëgg xam ndax ñu ñëw jàppale ma te yàlla tax sama biir bi à chaque fois daf may daaneel te awma ay moyen pour fay ji ko sama doom baa fii weer bu dee sa mënu ma ko yónnee dara moo commencé liggéey nag yàggul amaguma sa weer fu may liggéeyee woon naan nag ñu jàppale ma te yàlla tax dama mën a gis sama yaay ndax sonn naa lool te soxla naa ko moment yu ma nekk nii difficile na torop sax awma amulu yaay te awma amuru pap soo ma mën a jàppale te yàlla tax sama yaay mu ñëwaat samay lox ndax soxla naa ko lool taxaw ma muy dund wala daa dee man le 26 janvier laa judd Ziguinchor hôpital régional bu fa nekk sama turandoor Ami Timéra la Aminata Timéra soon nag keñ dëkkoon Grand Dakar lañu dëkkoon côté boobu lañ dëkkoon man le 26 janvier le 26 janvier 2000 si laay am 21 ans sama yaay de bu ma ko mënoon gis dina ma neex lool ndax sonn naa te problème problème ma nekk fan yi métti na lool yàlla na ma yàlla jégal mais parfois luy ñëw sama xel daf may sonal lool sax ndax toog nii kenn nekk fi daal si ñoom ñaari yëpp yàlla na ma yàlla ba parfois damay ma ne téemaa leen dafa ji lu bon ñoo dund la sama doom sama yaay Marie-Thérèse tudd Marie-Thérèse Diatta fekkente ne moom mi dégg na dellu saa samay loxo même fekkente ne bëgguma wala dama bon moo tax bëgguma mais def ma nekk liir nan la xamee sama bonité na ñëw rek ma gis ko te yàlla tax des femmes bu ñu bàyyee seen doom ginnaaw c'est pour dimbali ko. ma waxati rek. Mm-hmm. wallaahi. jabar bu mu tax nga bàyyi doom yaay do bu mu tax nga bàyyi doom. jigéen gu fi bàyyi sa doom ndax góor tu vas le benn góor jaru ko benn jigéen jarul tamit ngay ba sa doom. situation. moom bu mu mënti doon. sa doom. doom nday ja doom na toog ci wetu ndayam. Ah, doom na toog ci wetu 15 ans lañ ko ëmbal xëy na bu nekkoon ak yaayam wala papa. bu ko dal mooy conséquences yi. loolu aussi njaay Instagram bi. moo gën a garaaw bi ñu wax. bari nay sàcc bari nay triant bari na ay escroc bari nay peegar Instagram <laughs> reena xam na li may wax <laughs> ah, ah, ah. Instagram bi <laughs> am na ndaw su fa nekk suñu wax. nga compte Instagram. <laughs> man ma man aw ma ko tax mais bu ñu yàqal attaqué non non man damay yow sa bos lu mu. Ah. sa Instagram lu mu doon. man <laughs> avant man di dem ci liggéey wax. non man man waa déglu ma. sama bos Mamadou Mouhamed Ndiaye. waaw waaw. yooyu moom génne leen ci non yooyu yëfi gone la. bu ay Instagram ay xoolal ay sàcc bari na fa. ban kii Instagram ban kii page Instagram am. Ah. boo fa duggee. Mhm. Euh, loo xamul ci histoire réew mi kii mën na la ko jàngal ci wolof. ak ci ay ancêtres yoo xam ni. ñu ngi fi woon ndaw ñi xamuñu leen. mu leen jàngal loolu tuuti la ca. bu page Abba day reetaan loo. ak peut euh, ñu kaf ak ñun loolu. mooy suñu damay dem ci compte Abba. man heure bu ma bëggee wax olof même xalaas xalaas mhm. bii sax. Mhm. am na compte Instagram. xam nga lu tax nit ñi ñooy bëgg lekk-lekk. yenn photo yi ngay génne. quand ñu koy mën di fekk ci réseaux sociaux ma bàyyi ma la waaw bàyyi ma bari waa non comme dama dama dama tudd dama tudd page xalaas Instagram c'est xalaas RFM l'officiel mm-hmm. ñun ñett ca nekk mm-hmm. ah, ku fa créé beneen page nag leneen loo ca kii sa page bopp waaw dama ni eggale jigéen ñi surtout jigéen ñi ñooy sàccante seen biir du digital contre digital de jigéen ñi <laughs> jigéen ñi dañuy sàccante seen biir mhm. dañuy dañuy génn am njaay ca biir ni dañ koy jaay seen moroomu jigéen ñi contacter leen nga yónnee avance doo jot marchandise hmm? am na ko naan kinne kinne nu mu sant lijjante mu sant démb sax woo nañ ko ah lijjante nañ démb démb woo nañ ko téléphone kinne Instagram rek kinne ñi mu dóor mhm. te ñu contacté ñu fi mu nii série fi mu semaine bi fii ba vendredi wala fii ba lundi prochain ci Kiné la ñuy ne bisu ne ñu indil leen dara ci Kiné. Ah. ba Mauritanie. ba France ba Amérique dóor nañ ñu baree bari ci ay affaire greffage déglu. maa ngi tudd Fatou Badji mais Kiné Ndeye Fatou la ma gën a xamee. tabaski bi du jub si dama dama dama gis perruque ci moom. ma dajale sama xaalis ba muy mat trois cent cinq mille francs ma ne ko de man de perruque bi laa bëgg ma laaj ko longueur bi ak ñaata lay jar mu wax ma benn longueur 16 la ak benn longueur 36 la 36 mais daf ma koy tental maron blonde. calculé ma ne ko léegi yow defal sa calcul mu def calculam mu ne ma longueur 16 bi mille la longueur 36 bi cent 195000 195000 la waa léegi loolu yëpp boo ko boolee dafay nekk cent 305000 mille laa yor fii xaaral ma envoyé la ko mu ne ma waa léegi amul benn problème suba. dinaa yónni sama livreur léegi de sa fait que yow da nga koy jox frais de déplacement bi rek nga jox ko deux cent mille ma ne ko amul benn problème dem naa si salon wam mu defaral ma ma kontaan loolu yëpp am ci moom confiance mais xalaatu mu woon que jusqu'à présent du ma jot sama perruque ba ma ko joxee xaalis bi deux mille yi bi mu tombeek fin du mois muy cent mille mu jox ma benn numéro bu ma ko ci dugalee man maa fay frais yi mais depuis lors ki ne musumaa woo man maa koy woo di ko laaj affaire bi fu mu toll génn na fi problème gp nit ki boo jëlee alalam minimum mooy nga wax ko alalam lu mu jot investir fan la tollu ki ne bu amone problème bu ñu ko waxoon ci jek ak teranga man de ma part personnel mënon na ko jéggal problème bi nu mu ni tourner man mënatuma ko bal que numéro da ko def ci instagram bi ma contact ko bu ko ko contacté munuma dama nek en promotion profite toi yónnee ma xaliss bi le plus vite possible parce que màggal tuba bi moo tax ma nek en promotion ma ah bon mënuma wax ma wax sama benn frère na ko transférel ma cent mille cent dix mille ci ci ci ci ci numéro numéro bii. na ma jox ma sa adresse ma envoyé ko sama adresse. ni ma ko envoyé sama adresse. deux jours trois bu ma ko envoyé sama adresse dem na ma dinaa dugal affaire bi ma toog trois jours quatre jours màggal gi di waaj a jege si ma woo ko ma ne ko kinne dugalagoo affaire bi ba ba tey mu ne ma sii dama jàppoon tey mais naan demee dinaa ko dugal demee ma woo ko ma ne ko dugal nga ko mu ne ma sii yónn naa sama benn frère dugal na ko. man comme yónni nga sa ko mën na ko kon kon léegi jox ma suivi bi comme ça ma koy suivre fekk ba mu yegg see fii ci man. mu ne ma nii waaw maa ngi lay yónnee suivi bi. instant yi dama jàpp ma xaar xaar xaar xaar xaar ba sonn ma woo ko ma ni ko kinne gisaguma CV bi de mu ne ma non soxna si bu ma teg pression daf ma ndànk kooku dafa dem liggéeyi ma ne ko liggéeyi deux jours est-ce que loolu c'est possible mu ne waaw non non bu ma ma teg pression def ma ndànk def ma ndànk ba nga xam ne nii jot na su ma jotee suivi dinaa la ko yónnee ok ma ne ah naa may journée temps ba guddi ma rappelé waat ko bi ma ko rappelaatee ni ko kinne mu naa ma ni ko ah, année suivi bi mun na ma soxna si bu dee loolu la dugal la ma delloo la sama xaalis man delloo si waa DHL bi ci man. man ko mbaa ki ne loolu du la gaañ ko defee mun na ma man daal loolu sama yoon nekku ci parce que soxna si yaa may bëgg fa. ko ah bon mun ma waa ma ne ko kon donc ki ne mun naa ah, man ne ko kon delloo ma sama xaalis mun mu demaat ñëwaat na ma duma la delloo sax xaalis parce que def naa ko commande ba pare dugg na DHL. ma ne ko ok comme dugg na DHL léegi jox ma suivi bi mu tontuwaatuma daal di mu daal di ma bloqué bi ma bloqué directement mu dem kontam def def def def def direct waaw xale bu jigéen bi bu nga xam ne nii dama ko am naa benn client déjà daf ma bëggoon arnaqué daf ma bëggoon arnaqué ma woo sama benn sœur bu nekk Italie man na ko damaa bëgg nga woo Kiné nga wax ak moom pour sama affaire xaalis kooku xam na ko pour sama affaire da xaalis bi bi mu ko woowee mu ne ko dinaa la rappeler nii laa yem ci Kiné ma toog di ko xaar di ko xaar ba tey jii may wax ak yow xale bi envoyé wu ma sama xaalis jaay na ma réew dépassé na ma wax na ma n'importe quoi traité na ma de quel n'importe quel nom parce que boo liiree message yi mun naa ma seen waa kër xaw ma lan ak lan jël sama photo dugal ko ne man arnaqueur laa ma ni ko ah bon mu ne ma waaw ñun ñëpp jël photo bi capturé waat ko envoyé ma ko dama kinne moo dugal kat ak kii bi ne yow arnaqueur léegi li ma bëgg xam mooy. waaw moom mi di xoolal yeneen victimes yi ci topp. ci kii bi Instagram réseaux sociaux yi rek lañ xamante ak Kine. Oh, kese ba jël seen xaalis yónnee ko. ba mu kon Instagram du deful dara. dama ne Instagram def ñoom seen confiance peut-être moo teel ci. Ah bah. gis nit ci réseaux sociaux yi rek deful dara paaka. dañ ko fekk fa mu teg tegee jël ko door ko. mais la Instagram di def la Facebook di def. moo tax man la Instagram deful dara. ah ok ok ci ci yàlla paaka deful dara xam nga mhm. paaka suñ ko bàyyee fa mu ne du gaañ kenn mhm. c'est la même chose nit a koy ñëwul jëw def ci lu baax mhm. wala mu jël ko def ci lu bon dëgg la c'est la même chose que Instagram dëgg ni mii suba di nga gis waaw dégg waaw Mauritanie waa biir fii ak ri di daggee Sénégal Mauritanie Maroc ba bitim réew ñu ci bari femmes yi bari dañoo mujj créer benn groupe WhatsApp ñi mu dóor ñëpp xamante wuñu de dajaloo pour xool def xamu coalition ànd lijjanti suñuy koppar ci kii noonu la ñu woowee <laughs> coalition ànd lijjanti suñuy koppar ci kinne lim ci ko changé nag lañ koy lijjanti coalition ànd teg bët kinne <laughs> teg bët <laughs> déedéet mais am ko tegul bët noo am nañu ko mën ko am ah, ah, ko mën a teg bët ah, c'est que def lii dañuy ay nit yu am fit la ñuy doon ay peegar la ñuy doon yoo xam ne xool li mu def mais taxam wax na nag version ki wax doo nga dégg de dégg version ki ne dem na jël version am démb mais dafa wax carrément di leen fay le 10 janvier ñoom ñëpp waaw Ah, teew yi dana leen fay waaw mais loolu yàgg na leen koo wax du du leen fay te dañoo bari te am na ñoo xam ne yorelu leen xaalis bu ndaw ñi ay trois cent mille ñi ay quatre cent mille ay xaalis yu kii la waa waaw Mauritanie ngi waa ñëw ndakaaru fii xalaas ñëw toog ay naar waa léegi may ma dem Guinée Bissau passeport moo fendi benn passeport Guinée Bissau waa ji sëy sëy de ba la tudd sëy de ba Sadio Bissau Guinée la passeport am mi ngi fi am na beneen ñu xanaa dañoo seetaan si woon match Sénégal <laughs> Guinée Bissau kii tamit euh, Fernandez Layal Vage. Ah. noonu tudd. Ah. carte d'identité mi ngi fi ah. mais lii bu ñu leen ko làkkul ci créole ñoom nuñ koy xamee. ah dañ koy ah. dégg seen waa ko communiqué ko ci créole aba comme ça ñu xam ne seen i. non non man du ma daal xam naa ko ci créole. mooy Bukari Bukari Moun mooy pour boo déggee lii nga ñëw Bukari Moun. day la war <laughs> aba waxal xale yu jigéen que ni Casamance doo ko communiqué ci créole. <laughs> kii ak yàgg Casamance koo xam ni xamoo ko hmm? nekk ci Facebook bi wala Instagram bi damay jaay ay semis semis yi dix mille laa koy jaayee wala euh, carton semis laay jaay euh, cinq cent mille la avanceal trois cent mille ma jox ko livreur bi nga dugg avance trois cent mille mu tëj compte ba wala mu tëj numéro wala mu bloqué la hmm. xamoo fu mu dëkk xamoo koy ndeyam xamoo koy baayam xamoo boutique am xamoo fu mu nekk mais yénn yi dëgër fit la nag yéen tam très bien léegi dañuy wax passe partout ci 150 17 17. waaw ngir ñi nga xam ne dañoo am xalaas. waaw képp koo xam ne dund nga lu mel nii. Mhm. ñu xool. Mhm. mën a tiire. Mhm. ku ko ci woo jotoo it contacter ñu ci Instagram xalaas RFM l' officiel dégg nga. mais mais li ki ki ne wax nag xanaa dinañ ñu ko jox. non ki ne moom ki ne suba ki ne nag ko buntu xam nga ki ne ñi ngi koy wër sànq gis nañ kontam. waaw moo kuy nëbbatu baa kuy njublang pour mu def lii dana jafe. léegi moom it dina fexe indi bu ko defee. deram du yàqu bu fekkee fam lu ci am. mu leeral ko. waaw moo gën a wër. waaw alors comme mi ci commerce.